dañu ñëw ci jàmm war a gérer ci jàmm. mais hmm, lu toll ni tey jii nii euh, suñu mbokk chrétiens yi. nga xam ne tey euh, loolu loo mënti wax rek euh, nekk nañu seen coin. waaw ñu ngi seen coin. Mm-hmm. comme ni ko gars waxee dugguñu ci dara. nekk seen dugg waaw mm-hmm. parce aussi tamit musulman yi tamit delloo leen ko. Mm-hmm. boo xoolee man li ma gën a metti rek mooy même bi Abbé Euh, euh, waxee Ndiaye. Mhm. da nga gis ay imam mhm. yu génn di def di di di ko attaqué. nga xam ni kon débat bi fi mu tolloon. kenn merci. Mhm. te loolu yëpp tey Ousmane Sonko mënoon na ko moytu. j'en profite aussi tamit pour euh, féliciter le ministre Guirassy. Mmh, sa réaction neex na ma. waaw parce que euh, Guirassy c'est le ministre de l'éducation. Mmh. actuellement information mi am ci éducation bi. mën naa wax ni Ousmane Sonko sax à 100 pour cent du ko am. Mhm. parce que grâce yi moo gën a nekk sur le terrain un premier ministre un coordonnateur la rek. Mhm. il coordonne le gouvernement du dëgg. Mhm. mais grâce yi mi nekk ci terrain bi xam tey jii nii euh, nu mu tëddee problème er, problème yi nga xam ne moo nekk ci éducation bi. sa réaction neex na ma. li tax moo xoo euh, gis nga euh, mbirum école yi. nañ ci def naa ko tuuti. état dafa gérer ay école am. mais école publique yi. mooy école publique. Mhm. état moo ko gérer état nag république lay doxal. Mhm. mais dafa am ñoo xam ne dañoo dem tijji seen école monsieur Thiam tey. war na mën en tant que musulman dem tijji école am. Mhm. du dëgg bu neexee ne sama école tey ah. mais ay musulman rek laa fay ñoo fay jàngee loolu kenn mënu ko ko bañal. noonu la aussi tamit euh, chrétien tamit dem tijji seen école privée catholique. d'accord kon kon kon école euh, privée ñoom dañu am pouvoir boo xamante ne seen pouvoir personnel. non mais ñoom seen religion la ñuy jàngale. seen religion dafa am dafa am doole. Mhm. man man man ci euh, école privée catholique laa génnee. Mhm. gis nga ñun école privée catholique yi la dernière fois à sa mhm. gis nga école euh, privée catholique yi. gis nga ñun chaque huit heures. balaa bu bu bu maître bi ñëwee ñoom dañuy def seen ay prières. ay prières yoo xam ne balaa cours yi di commencer. dañuy def seen prière chaque vendredi dañuy bàyyi ñun musulman yi dañuy bàyyi ci classe bi di dem catéchisme mhm. moo tax d'habitude école privée catholique ci bëri a côté da nga gis église mhm. mais seen dina la ñuy jàngale mhm. kon donc yow boo demee foofu fekk leen fa ah ah war nga mën a tamit tënku tey ci ci nga xam ne ñoom seen règlement yi nga xam ne moom la ñu teg d'accord bu dee yow arrangé wu la mais a côté am na ay école islamiste yu fi nekk tey lu mel ni tey ay alsa al kii euh, alfalaar mhm. bu kolobaan mhm. al azar ñoom ñëpp ñu mhm. foofu tamit bu dee yow tey jii nii da bëgg mais wax naa ko de la dernière fois foofu laay tëjee pour pour bañ a dugal comme ça après ñu dugg ci waxtaan bi man ñoom ñoom les chrétiens ñoom tijji nañ seen école ba ba julli di fa di fa jàng si te bien vrai que ay privé catholique lañ ay musulman dañ fa doon ñëw mais les ñoom école kii euh, école islamiste yooyu noonu tey jii nii cent pour cent musulmane mhm. mais foofu doo fa gis chrétien te man j'en suis sûr que tey même bu fa benn chrétien duggoon di jàng al muy al azar muy al falaa doo gis fu du ñu nangu benn chrétien sol croix di jàng si foofu mhm. mais c'est normal mhm. ay école islamiste lu cent pour cent islam la ñuy dund comprendre nga bokk ak nag fi may terminer mooy état état moom république la tout est permis xëy na nag dafa am ay normes yu ñuy yem rek mais nag nañu xam ne aussi tamit religion bi mhm. li muy bañ aussi tamit ci mhm. foo tamit ñu leen koy nangul ci ñaari côté yëpp ah man euh, balaa meew ma al alfalaat balaa leew balaa meew ma euh, nu mu tuddati privé catholique yi mhm. comprendre nga dafa am benn waay bu ne ni catholique yi tey jii ni demee tijji seen école privée mais julliti ñoo fi ëpp mais pourquoi julliti ñu dem tijji ay école da ngay gis ay ay ay ay milliardaire fii demal xool suñu milliardaire amul kenn ku ci am école école yi ñu koy tijji des fois ay gens ay professeurs ñooy génn kolo kolo dem créer def benn genre kii j'ai créé benn école mais tey war na mën a am tey ay école yoo xam ne ay ay musulman ñoo koy ñoo koy moom hmm. tey Ablaye Dia war na mën a créer ay école école privée hmm. euh, ke ñeneen ak ñeneen mais boobaa tey ñun suñu ñu bari du ñu dem fekki euh, chrétiens yi hmm. parce que du ma la nëbb ni chrétien musulman yi ñoo fekki chrétiens yi seen école d'accord yu budul sax voile bi mais lu am na lu fay xew tey loo xam ne tey sénégalais xamuñu ko ci loo xam ne ci seen ay pratiques yu ñu def la ci seen école te mënoo ko mënoo ko bañ parce que yow yaa leen fekki. d'accord d'accord Zeynab Zeynab nga parce que parce que wax bi dafa am njuumte quand même xam nga dañoo nekk ci thème société. Mm-hmm. te ñu daf ñoo laal waaw rapidement rek parce que dafa am ñaari mu jaawaatle. Mm-hmm. Euh, së sëriñ bi sa kanam nga rafet nga macha allah. Mm-hmm. yow da nga da koy ñeewante sax. mais il faut la parce que. Euh, état ni muy gérer école publique noonu lay gérer école privée. ce que doo may ma liiral ko article 23 mm-hmm. des écoles privées mm-hmm. peuvent être ouvertes avec l'autorisation sous le contrôle de l'État loolu mooy article 23 suñu constitution mm-hmm. mu ñëwaat article 24 la liberté de conscience la liberté de pratique religieuse ou cultu le, pro, le la profession d'éducation religieuse son garanties à tous sous réserve de l'ordre public ñaari articles yooyu dafay dàq li nga wax nii yëpp ku mhm. seen ay école beneen bi mooy du école confession am na ecole mhm. catholique yoo xam ne confession la comme daara ni mel mhm. yoo xam ne ci wàllu la ñuy jàng mais par contre bii privé la très amaat privé même li nga naan école kii am na ci franco arabe bii ci point E am na ay chrétiens yu fa jànge loolu rek laay kii wax bàyyi sawaay mu continue d'accord rapidement Thiam parce que tamit euh, euh, bi ngay wax naan première première bi muy wax benn la tontu tontuwut abbé loolu tamit faaw ñu jiital ko abbé moo ko tontu dafa am xale bu ko laaj mu wax adressé ko France mhm. te mooy li kiy wax sànq li abbé bind dëppoowut ak li christianisme mu jàngale parce que ñoom xam nañ muuraay wax na ko ci biir. dëgg la loolu waxi franc-maçon la franc-maçon yi ñooy waxee noonu. maanaam di xeex benn kii parce que boo xoolee Jeanne d'Arc la. Mm. te programme français la. bokkul ak école privée catholique yi nga xam ne moo ci ñëw. Mm. te question boobu sax li may wax mooy déjà luy régler la parce que même ay gone ci catholique yi comme ni ngay gisee imam buñ tëj fii wala imam bu toj kaas yi. fii korite gi weesu sa xarit la imaam Alioune Moussa Samb waaw ku ne xam na saa wolof lu mu wax ci waxam noonu la amee tamit xale chrétiens yu d'accord ak yooyu par contre comme ni foog fi affaire bi yegg nag bay xale musulman commencé taf Jésus di wax nangam dama ne leen yéen ku ci taf Jésus mhm. wax Jésus Christ lu dul dëgg mhm. nekkatoo jullit dootoo jullit maa la ko wax moo tax affaire bi kon foofu faaw ñu ñu ñu xam bu ñu mhm. ko politiqué hmm. dugal ko ci politique abbé moo ko politiqué bëgg la maanaam Latir Ndiaye abbé Latir Ndiaye comme imaam bu jóg déguisé wu di politiqué effectivement noonu la ko def moo tax nañ ko géej bu ñu bëggee defar suñu dëkk hmm. suñu dëkk Sénégal suñ bëggee mu jëm kanam dañuy régler question yi tey nag dama jàpp ne ci nii mbaa ci naa réew mi moom day régler parce que problème bi mooy xale yi amatuñu complexe du sëriñ du imam du abbé ñoom ñoo war a xam ne nit ñi yéeneen na leen lu mu am teraanga jeeg alal jeeg yooyu ba pare ñu respecte nit ñi quand même mm-hmm. parce que jamono yi damaa gis ne ay mag képp ñoo fiy defi burdu wala ay kilifa moo xam mm-hmm. imam wala sëriñ wala abbe mm-hmm. faaw ñu ñu jàmm xam ne lislaam des personnes yoo xam ñoo war a gis nga diine suñu mbaax gi fi la ko diine islaam fekk waxantuma laa ak diine christian chrétien am na luñ ci yokk nag ñu nangu ko lu bari luñ ci nangu mais rabin bi ngay wax léegi heureusement bi sociologue bi toogee fii le rabbin bi ngay wax am na ku ñëwoon jamonoy Ablaye Wade bi ñuy wax dialogue islamo-chrétien c'est pour vendre destination Sénégal parce que Sénégal catholique yi ak jullit ñoo fi kii rabbin bi mu ñëwee li mu laaj dane biñ ko waxee affaire dialogue islamo-chrétien mu ne fa ma jóge ak dëkk yi ma romb fekk naa fa diine yi te teewul ñu ngay tojante bopp mm. lu tax ñuy tojante foofu bopp te tojantewul Sénégal loolu mooy question bi mm-hmm. ñu doog ko indil ni ñu nekkee woon ci diggante euh, doomu nijaay ak doomu bàjjan ak euh, séeréer beeg tukulóor bi maameeg sët ni ngay maameeg sët ak yu demee noonu biñ ko tegalee yooyu ci lay doog a wax ne ah lii mooy l'exception Sénégal moo tax ñoom muy kilifa diine yi laay wax ci côté bu nekk nañu rafet ci lii mm-hmm. mënatuñ ci réew mi dara mm-hmm. yàq ñaaw ci rek lañ man ñu te nag du tax ñu weddi ña ca gëm Jésus Christ weddi Jésus Christ ndax yow de wala ñu gëm sëñ Touba weddi sañ Touba ndax benn sëtam de mm. wala ñu gëm maam Maodo dañuy lànk ñoom la ñuy continuer wóolu ba pare teg la fële di doxal ci ñu nekk ci yoon mm-hmm. maa ngi tuub d'accord li mu wax li mu wax mm-hmm. nga baal ma rek mm-hmm. parce comme que sociologue mi ngi toog est-ce que tey euh, so kii monsieur kii kante monsieur Malaw ah Malaw waaw monsieur Kanté damay laajte est tey man étant musulman dem ci privé catholique est tey yoon may woon na république may woon na chaque jour huit ñoom ñu def seen prière ñun ñu toog di leen seetaan mhm. est-ce que loolu république may na ko parce que loolu amul école publique école publique amul tey jii ni bu bu ñu egsee julliti di ñaan fii catholique yi di ñaan fii mhm. comprendre nga mais loolu est tey question rek laay laajte quoi merci mhm. est tey yoon may woon na tey ñoom ñu def tey julliti toog ñoom ñu def seen i prière. dañ ko tolloore rek. loolu loolu moo lay xamal ne nit ñi dañ leen a wóolu. masu ñoo am ak ñoom problème boobu même buñ koy dégg. Mm-hmm. loolu ko kaas. Mm-hmm. parce que ci ak histoire boobu man démb dégg ma nettali. Mm-hmm. koo xam ne nee na bi ñuy ñaan moom daf daan wax ci suuf lay wax jërëjëf sëñ Touba nee na benn xaritu xale chrétien laaj ko ne ko la moo tax booy génn wala nga génn mu ne may génn wax jërëjëf sëñ Touba moo tax may am not gis nga yàggul dara ci niñ ma waxe mhm. xale ba tuub. Mhm. kam ka doon wax loolu. Mhm. mais pour wax la ne bu mu ci mën a mën naa doon dëgg man maa ko gëm mais damay wax ne foofu mën naa bañ a doon dëgg. mais pour wax la ne ñoo ko tolooree. Mhm. mais bu mu am problème waaw waaw waaw bon effectivement xam naa dañu mujj def ko sujet rek waxtaan. non c'est la non. que sujet am solo la non non dañ ko def sujet on prend encore on prend encore huit minutes pour en parler. Euh, non non c'est un normalement ça ça devait bon. Euh, je suis mhm. pas là pour vous imposer un sujet mhm. mais c'est un sujet très intéressant boo xamante xam nga lu tax ñu éviter ko très sincèrement. on s'est dit que ni comme waxtaan jot na am ba ñu gas ko ci suuf. ñun aussi. c'est de notre devoir ñu ne ñu gas ko suuf parce que ça a heurté des Ah. oui mais nag mais nag di ci wax waaw parce que dañ fi doon invité ay imam ñuy wax wax ba tàng xol et puis ça mm-hmm. heurté des sens bi man personnellement je me suis dit de ma responsabilité mm-hmm. Mm-hmm. je vais enterrer ce sujet comme am na ab waxtaan ba tënk ñoom buñ ci duggee rek lay yàqu nit diine yi ñoom passion la ñuy jiital muy chrétien ba muy ñeneen ñun ñii ñoo ko mën a régler voilà non c'est c'est ça je pense que xam nga li ñuy wax rek gis nga góom bu xasee ba am il faut aussi nga bomb ko quoi voilà malheureusement. Euh, c'est un débat qui li ñu wax rek le débat n'aurait pas eu euh, mhm. dû avoir lieu. mais comme xas na ba am ba pare. Mhm. je pense que aussi mën nañu xool euh, yan façon te je pense que c'est des gens responsables qui voilà qui en qui en mhm. ñëpp xam nañu réew mi amuñu problème mu. problème confession hein pratiquement et d'ailleurs sax fi wax di jógee mooy li day montrer que ni y a eu un échec de l'éducation mm-hmm. euh, au niveau de l'école publique parce que parce que effectivement lii échec la mm-hmm. Mm-hmm. échec la euh, gis nga boo jëlee kaw France damay faral di ñëw foofu souvent parce que ñun lu ñu def li yëpp roy la en réalité suñu constitution beeg suñu république nu ñu ko defee yëpp pratiquement foofu la ñu foofu la ñuy inspiré wu école bi ak éducation bi euh, jusqu'avant la révolution les révolutions sax laay wax yi jot am en France 489 48 euh, bon et cetera et cetera yooyu yëpp xoolee école bi c'était géré par l'église l'église qui gérait l'école bu mu amee révolution yi ak franc-maçon yi ñoom bu ñu ñëwee si lañ créé ce qu'on appelle donc l'école laïque avec Jules Ferry yëpp jàng nañ ko à l'école hein Jules Ferry Jules Ferry qui était franc d'ailleurs hein mais bu ma ñëw insister si côté boobu mais damay wax ñoom aussi idéologie pour créer une une école républicaine ak aussi finalement li xew bu 1901 la liberté la liberté de culte ou la liberté de conscience mhm. en France bien que seen laïcité bu ma siy sore parce que seen laïcité bi dafa laal seen histoire mhm. laal seen tradition ce qui n'est pas notre cas mhm. ñun on connaît pas ce problème de de de religion de de de de on connaît pas tout ça donc euh, li may njëkk souligner du du doigt mooy échec la de l'école publique man maa ngi fàttaliku sax il y quelques années man je suis de Podor mais amoon na benn école privée moo fa amoon à Podor. te mhm. ñu fay yóbbu ce sont les les jeunes ou les enfants qui ont échoué. Mm-hmm. ñoo a ni excusez-moi du terme mais on les appelle les nullards. les nullards waaw jotu ñi exactement. <laughs> ce sont ces gens qui partaient. à l'école privée comme partout au Sénégal comme partout au Sénégal. Mm-hmm. léegi nag mu dem école privée école finalement le mal aujourd'hui c'est dans l'école publique. Mm-hmm. voilà maintenant bu créer effectivement les écoles privées dafa am yoo xamante aussi parfois état justement daf koy tolérer parce que école privée yooyu dañu am seen règlement intérieur. Mhm. mooy waral effectivement day sax am na si yenn yenn éducation yoo xamante ni c'est au choix c'est au choix am na am na par exemple élève bi mën na jël option. que ni moom effectivement day jàng lépp loo xamante ni day jëm si wàllu eschatologie. Mhm. par exemple euh, doomu musulman bi moom mën na bañ a effectivement jàng yooyu yëpp wala jël euh, option yooyu. Mhm. donc tolérance boobu effectivement euh, finalement te c'est normal parce que école privée aussi dañu am seen règlement intérieur. Mhm. mooy support tenue yi déjà rek si tenue yi ñuy soli. rien que loolu effectivement mën nañ ne bokk effectivement si règlement intérieur bi boo Euh, comme école publique bi ni koy demee solu la neex foofu mën a fa dugg solu la neex mhm. donc dina am aussi ci wàllu organisation école bi ay quelques sew-sew yoo xamante ni état bi effectivement daf koy tolérer mais yooyu yëpp effectivement euh, lu ñu loo xamante ni la mën nañu ko tolérer dans la mesure ou du liberté la liberté de conscience effectivement de l'autre du tax euh, xalit boo xamante ni jullit la bu ñëwee ñu obligé ko mu julli comme ni chrétien di jullee mhm. loolu effectivement mhm. euh, c'est pas c'est pas obligatoire mais aussi mënuñu bañ tere yenn sew-sew yi comme école catholique la effectivement yenn yi war ci mën a am comme comme ngay wax ni effectivement les petites formules de prière yoo xamante ni euh, ko wax avant avant léegi nag lan solution bi parce parce que début boobu ba tey je pense que ñu ngi wax mais trouver ñu solution. lan moo war a doon la solution est-ce que tey le gouvernement am na sañ-sañ. comme ni mu koy defee ci yeneen ci yeneen euh, wàll yi ci yeneen point yi tëggaat charte école privée yi ba tegaat ci loxo am ci mainmise xam li fay xew ak lu ko dul xew wala dañuy continuer di tolérer ba tey. waaw mais c'est ça c'est ça la grande question xam nga débat bi. dafa ci mhm. man dama je pense que ça c'est parce que sujet boo xamante ne c'est tellement sensible. ouverte bi dafa man benn benn paragraphe bu ma ci bàyyi xel. <laughs> mooy quand il dit que ni ku dégg sa wax Ousmane Sonko xam ni l'année scolaire bi ñëwaat guerre mu ngi waaj a ñëw mooy maanaam xëy na njort na ni am na lu ñuy waajal pour l'année scolaire prochaine. question boobu solution bi rek ma jox ci am. problème bi xam nga kan moo ko waroon régler. waaw mhm. président Macky Sall ca ba mu tàqee. en 2019. moom moo moom indi problème waay waay ki nit yàlla dafa fonk kilifa. Mhm. gis baatu kilifa yàlla moo la jox dooleem. <laughs> buur yombul yàlla moo la jox boo dooleem pour nga teg dëgg lu dul dëgg da teggi dëgg teg fële. Mhm. nga baal ma après mën naa dugg dugg ah, yeggli. non non c'est effectivement c'est ça moo ko waroon faj. non loolu la moo tax ma ni comme. Mhm. vraiment débat bi posé wu non il faut dem jusqu'au bout. parce que il faut ñu def ñu nekk dans la demi mesure. Ah xam nga mbir boo koy ëff. di ko di ko ragal. oui dalay gaañ euh, au final. parce que mm. débat bi mën na dem ba finalement mu sulleeku. ci mm. beneen anam. parce que bëgguma ci sore sore trop trop. vu que 2019 contrôle nañ ko bii contrôle nañ ko. amoon na 2019 na it buy ñëwaat duñ ko mën a <laughs> duñ ko mën a contrôler dafa am loo xamante ni mm. mooy li ñuy wax ni si wàllu règlement intérieur. ak loo xamante ni mm-hmm. mm-hmm. am defoon genre kamikaze. Mm-hmm. duggoon ci ay école rayon faute ñu bari. Mhm. loolu moo indi gën a indi woon mhm. problème bi foofu la commencé woon. Mhm. moo tax c' était très sans bi ngay wax naan président Macky Sall. parce que affaire waa gendarme ñoo ko commencé woon. bañ waaw. comme ni ko saa et même ça et même moo tax ma problème de voile. il faut aussi ñu comprendre que y' a trois diina ñetti solo la am. ñetti solo la di la wax. benn bi daf ko décrier. benn bi mu ne c'est pas recommandable benn bi mu ne lii la recommandé. Mhm. dafa am lu ñu naan euh, euh, tabarouge am lu ñu naan euh, niqaab am lu ñu naan zeyul islam tabarouge mooy nga extergi nga nga exhibé wu. là doo solo solo bu baax. l'exhibitionnisme quoi voilà. loolu mooy tabaruj mhm. wax na ko ci alxuraan walla tabaruj na tabarujal jaahilatul ula am nañu naan niqaab moom mooy burqa boobu ñuy wax. parce que burqa bi. Mhm. même góor jigéen sax mën ñëw solo solo solo. boobu moo fi doon problème burqa bi burqa la nag mhm. lii tax lii tax nit ba jom ci burqa. Mhm. il faut mu nekk ay conditions xam nga yenn saa yi ci mën nga gis benn comme jigéen bu mel ni Soxna Zeynab. bu duggee ci koñ jommal gars yi ngir taaram ba kenn mënutul téye sa bopp. boobu jigéen bu burqaawee dinañ ko dinañ ko dinañ ko dinañ ko accepte pour une chose pour une situation bien déterminée mhm. c'est-à-dire que ngay taaru ba nga xamee ni koo ñëw taxaw du mën a du mën a téye boppam benn bi su topp am na ñi nga xamee ne aussi dañu nekk ay nit yi nga xam dañu nekk ay personnes influentes mhm. nga xam ne dañu dugg ci bu am na borom alal yi xam bu duggee ci jumaa jumaa ji kenn du julli jumaa mhm. parce que ñu bàyyi xel affaire yooyu donc situation yooyu la ñooñu jumaa wàcc na leen waaye nag ñi nga xamee ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan yéen vous êtes le